te tey li conseil constitutionnel def dafa firndeel dafa mandargal ne Sénégal séparation des pouvoir nekkatul wax kese mais ñuy jëfee la parce que président su jëlee décret ba pare euh, assemblée voté voté benn loi euh, ñu annuler euh, le décret du président de la République conseil constitutionnel def ko ba pare fas yéene attaquer la constitutionnalité de la loi bi assemblée jël donc loolu dafay wone ne la sépar ñetti pouvoir yi am Sénégal lu am la séparation des pouvoirs lu am la te tey conseil constitutionnel ba mu jëlee décision bi wane na moom mooy seul juge des élections moom rek moo mën a dakkal élections yi teg ko ci Euh, loi yi nga xam ne moo encadré nation donc ba mu ko gantalee tey wane na na moom rek moo am prérogative wu euh, euh, gantale ay élection te nee na processus bi décret annulation élection loolu président exécutif manu ko assemblée manu ko moom rek moo ko ko moo moom moo ko man dama ne ñun Pastef mënuñu bañ dëkk bu ñu bokk ñu waxtaanee ko mais ñu dem élection ba pare ndax nee naa ñaari at yi weesu li fi am soixante et quelques morts loolu mënul ñu mënul nax saay noonu loolu yëpp day leer ba pare nag ñu waxtaan waxtaan li nga xam ne li fi am ni dootu fi am ndax loolu mooy dëgg il faut ñu am ay assises yi nga xam ne Sénégal waratu la dund lim dund ñaari at yi. le parti démocratique ni ma la ko waxee dana joxe une position officielle par rapport ak li nga xam ne conseil constitutionnel génn na ko le parti démocratique sénégalais ak ay alliés. que dañu nekk ci dëkku droit dëkk ci dëkku droit boobu moo tax. ñun lan yoon may ca assemblée nationale ñu jël ko lan bam ban ko jëlee nag teg nañu euh, commission d'enquête ndax li xam ni ger la ak lu ne mel ñu doon ci teg tuuma ci lenn ci waa conseil constitutionnel loolu commission boobu moo mënoon a may ñu dem ba xam ana lan moo ca am ak lan moo ca amul.